jaajëfal di leen encouragé mhm. ci xeex bi ñu nekk euh, parce que nekk na mhm. ñëpp dañu ñëpp ñu si war a jëpp farlu ci xeex mu nekk benn xeex euh, mu jóge Hmm. Sitor euh, sa sa sa micro bi xaw na faible tuuti xam naa bu la xawoon jege tuuti rek gars yi gën la mën a dégg bu baax Gandiol Média maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax yow mi nga xam yow yaa nekk foofu xabaan ñu ngi lay ziar moor Bamba Touré ñu ngi lay ziar di la nuyu bu baax a baax alors Sitor tey mu mel ni kii am na ci loo xamante ni yéen a ngi ci nekkoon muy seen ak ak seen yelleef bi nga xam ne moom ngeen di défendre au niveau du CNG au niveau tamit ci li nga xam ne ci la ñu nekk muy la ci làmb ji nekk ngeen ci benn xeex actuellement euh, doon ngeen communiquer coow li bëri na woon mais actuellement euh, dafa mel ni kii am na leneen loo xamante ni moo gën a yitteel Sénégal tout d'abord da ngay dellu si rek ci ak yeeg yelleef yi nga xamante nii ca ngeen nekk di ko défendre après nag ñu ñëw ci sujet bi nga xam ni tey am na loo xam ni teg ngeen ko ci suuf pour xeex li nga xam ne moom mooy coronavirus bi. waaw bon dellusiwaat ci ci problème boobu. Euh, mhm. euh, sérieusement euh, nekkul woon sama yitte tey mais comme ni nga ko waxee rek am na ñoo xam ne xamuñu problème bi. kon la xëy na ma dellusiwaat ci rek tuuti suñ problème nag mooy vraiment assurance. assurance su arbitre parce que arbitre dañuy arbitrer képp Sénégal te amul assurance te assurance ku nekk xam na lan la lan lay jëriñ assurance boo ko amul te sécurité day gën a doy waar assurance boole ci sécurité parce que tey jii boo xoolee lamb yi ñuy arbitre fi ñun insécurité totale combat buy waaj a jeex gis nga ni muy demee combat benn combat bu jeexee avant yeneen yi stop di ñëw gis nga ni muy demee day may envahissement ak risque yu énorme yoo xam ne ñu ngi ci biir géew bi ak combat yoo xam ne bu jeexee ba journée bi yëpp jeex ñun suñu ñibbi dafay nekk ay ay risque dafay ne dañuy nekk ci danger dañuy nekk ci danger parce que fu ñuy nekk la endroit boo xam ne c'est pas protégé parce que bu affaire bi jeexee rek jeex ne ku nekk day dem te ñëpp xam nañ ne arbitre moo war a mujjee foofu arbitre mooy jiitu mooy mujjee donc euh, mujjee bi nag tey tase ak yenn saa supporters yi et yooyu risque dafay énorme mm-hmm. beneen bi mooy euh, li ñuy jot ñu jot tuuti la tuutiwaay boo xam ne ay at at ñu koy topp wax wax te dara musi changé mais boo waxee dañu lay naan changé na lu bëri amul dara lu ci changé combat yi ñoo yokku loolu hmm. changé beneen bi mooy réglementation bi am ci li ñuy jot ci payoor yi euh, li ñuy jot moo am dakaar war am ci région yi te respect bi ci région yi dafa des maanaam am na région yoo xam ne dañuy def normalement comme ni Dakar di def parce que loolu moo nekk ci texte yi 30 pour cent droit d' organisation moom la arbitre yi war am te gis nga am na région yoo xam ne respecté wuñ ko euh, boo xoolee Fatick ak Dakar rek moo koy respecté ñi si des ñëpp kenn respecté wu arbitre yi yàgg kaas loolu pour ñu ñu def leen même pied d'égalité de la région de Dakar ak une partie la région de de Fatick parce que lu ñu munta wax tam bu Fatick bi yëpp benn partie Fatick voilà loolu loolu am beneen bi mooy euh, beneen bi mooy prise en charge arbitre internationaux maanaam ñu may possibilité euh, arbitre Sénégal yi arbitre de grade national ñu mun a def le niveau international le niveau international nag pour nga def ko dafa laaj xaalis pour nga def ko dangay ngay jox xaalis bëri te loolu Sénégal su ko deful ci jàppalewul arbitre du ñu bëri tey international ñun ñii ñoo ci nekk ñett lañ te ñu ngi ñaan suñu rakk yi di ñëw ak suñu doom yi di ñëw ñu mun cee léegi nag loolu pour ce faire dañu ne CNG ñu jël en charge quatre vingt dix pour cent wala quatre vingt pour cent ci ci ci prise en charge loolu nga xam ne ñoom dañuy aspirer à être des arbitres internationaux euh, euh, arbitres yi nga xam ne internationaux lañ def dañuy jënd timbre chaque année chaque année dañuy jënd timbre te ñun ñoo koy jëndal suñu bopp te loolu CNG moo ko war jël en charge parce que boo demee ci dëkk ñëpp seen seen fédération moo koy jël en charge ba mu des ñun suñu tenue yi ñuy sol. mais si toor nga ni nga ni arbitre yi dañuy dañuy jënd ay timbre fa timbre lan la ñuy jënd. ñun ñooy jënd loolu c'est grave. timbre xam nga ñun dañu am licence ñun dañoo am licence ñun arbitre dañoo am licence licence bi ñu am arbitre internationaux yi laa wax dañu am licence boo xam ne chaque année da ngay fay soixante à soixante dix mille francs sa sa sa sa licence sa sa vignette vignette bi mooy timbre chaque année ñun ñoo koy fayal suñu bopp ren daal la la lañ CNG mu ne léegi ñu fay cinquante pour cent léegi ñoom fay nañ ko. ñoom ñu ngi xaar ñoom ñu jox leen suñ cinquante pour cent yi mais ñun ba léegi kenn joxee bi parce que dañ jàpp ne vraiment ñoom ñoo ko war a res parce que mu ngi ko dëkk yëpp war na ko mën a def waaw tenu yi mu ñëw ci tenu yi tenu yi waxuma tenu Sénégal moom ñoo ko mës a jël loolu moom ko arbitre yi ñooy mës a jël seen tenu au niveau international tenu bi cher na cher boo xam ne euh, ni ñu koy dafa doy waar parce que dafa am loo xam ne boo ko solul loo ñëw doo arbitré léegi fi mu ne nii valeur bi ñu wàññi loon bi passé pour ñu jënd tëli c'était à cent soixante quinze mille francs à léegi léegi nag euh, vingt pour cent yooyu bu la rëccee da ngay fay lu ëpp loolu léegi ñu ne léegi CNG est-ce ñu jëlal loolu en charge boo si point boobu sax CNG ñu ko war tellement da ko tardeel dañoo xaaral def leen nii dugg na nii affaire am délai ba ñun bi ñu demee Algérie ci championnat d'Afrique yi passé lii ñu sauvé sax mooy euh, dafa amoon arbitre yu bëri yoo xam ne jotuñu woon seen tënk léegi ñun bi ñu démarré compétition bi ak tenue yi ñu doon sol bu njëkk ci la ñoom seen tenue ñëw léegi rek ñoo ko desoon ñoo xam ne amuñu woon tenue parce que euh, jotuñu woon ba def commande yi à temps te cheroon na cher boo xam ne de détail bi euh, délai bi ñu mayoon euh, dafa desoon am na kii loolu daal moo nekkoon mémorandum bi nga xam ne moom lañ déposé sujet soo déggee nag naan li ñuy jot mm. ci ci point yëpp la mooy drapeau chef li ñuy jot combat avec drapeau sans frappe ak li ñuy jot au niveau international suñu waree dem arbitre ji au niveau international parce que loolu yëpp dañ ko tënk ci li ñuy wax mémorandum jébbal ko CNG di xaar seen réponse bu suñu répondre à part benn jour bi ñu ñëwee rek dëgërti rek ne du am du am waaw loolu daal lool loolu daal moo nekkoon li nga xam ne euh, moom lañ doon ñaxtu ñu réglé ñu ko comme ça ñu mën a arbitre jàmm lépp dellu placé. d' accord d' accord dégg nañu doléance yooyu defe naa ne Sénégal yëpp euh, yàgg nañ dégg doléance yi mu mel ni kii li ci xaw a yokku tey li ñu dégg comme information mooy euh, si wàllu tenue yi ak li nga xam ne moom mooy licence su arbitre internationaux yi mooy arbitre yi nga xam ni dañuy arbitrer sur le plan international muy tournoi CEDEAO wala yeneen yeneen di dem ay Algérie ak feneen ak feneen muy licence bi nga xamante ne da ngeen koy dagg muy euh, soixante mille nga wax wala soixante dix mille. waaw soixante sa dépend des fois day dem ba soixante dix mille sa dépend ci kii bi nu muy yokkoo rek soixante ba soixante dix mille daal la. d' accord mais loolu boo leen koy dagg c' est au niveau international du fii de ban fédération ngeen koy daggee. waaw waaw non loolu fédération internationale UW bi United World Wrestling moom moo ŋànk bëree lutte olympique. Mhm. léegi nag ñoom chaque année mhm. da ngay renouveler pour wane ne yow yaa ngi ci groupe arbitre mhm. international loolu mooy wane ne yaa ngi ci ba léegi. léegi loolu mooy timbre bi ngay jënd ñu nekk vignette boo xam ne dañ la koy tappal ci sa ci sa carnet pour wane ne na yaa ngi en activité ba ok d' accord Xabane Sila nee na euh, mi ngi mi ngi leen di euh, jàppale mi ngi leen di supporter moom arbitre la arbitre de lutte la foog naa ne fi nga toog yow yaa ngi liir leen les message xam naa message yëpp duñu ci ñëw incha allah mais message yu bëri booy xool ay message de soutien la bu fekkee ne yaa ngi sëgg ci euh, YouTube bi kon li ma lay laaj leneen balaa may ñëw ci Covid bi mais li ma gën a jaaxal mooy seen séminaire yi nga xam ne dangeen koy def à Saly li ma gën a jaaxal mais yéen arbitre yi yéen a ko doon financer seen bopp mais pas le CNG lool lu yéeme la bu weesoo li nga xam ni moom moo gën a yéeme di euh, assurance boo xam ni arbitre amuñu ko man nee naa combat bi nga xam ne moom mooy Alioune Seye 2 ak ñàkk jariñu am na lu mu créer mais am na leneen lu muy créer muy saafara ay tawat parce que assurance bii ngeen di wax ñu bëri ñu ngi bàyyi xel jouru combat Alioune Seye ak ñàkk jaruñ yàlla bu mu fi amati ñaanuñu ko yàlla arbitre mënoon na ci gaañu mënoon na ci am blessure wala mënoon nañ ci jam arbitre parce que amoon na jam yu fa am mais dafa mel ni kii mhm. combat boobu noonu lu ci bëri moo leen di jox dëgg ci côté boobu beneen affaire bi muy euh, sali bi nga xam da ngeen fay dem chaque fin de saison di def seen i séminaire yéen a koy financer seen bopp loolu tamit c'est c'est c'est c'est grave si déggin waaw euh, kii boobu euh, kii sorti la sorti la vendredi samedi dimanche VSD la chaque à chaque année dañ koy def mhm. buñ koy def nag dañuy demander soutien CNG nag dinañu jàppale mais du ko couvrir entièrement maanaam ñun ñii di la wax nii ñun arbitre yi ñooy cotiser presque ku nekk cinquante mille dañ yenn saa ñu dépensé ça dépend ci yow li nga bëgg mu dem bu dee sa famille bi yëpp nga bëgg mu dem ku nekk euh, sa participation yow kese rek vingt cinq mille léegi dinañ dem à hauteur de cinquante mille dem euh, boo jël euh, dajale lu bëri lu ñuy yóbbaale foofu may ko population bi muy ay yére ay fowukaayu xale chaque année dañ koy def daal def tuuti social ba pare boole ci bu ñu demee suñu demee premier jour li ñuy def mooy waxtaan ci làmb xool lan moo mën a jëmale làmb kanam seet lan mooy gàllankoor suñu liggéey seet lan loo xam ne ñu gis nañ ne bu ko CNG defoon mu baax mu avancé loo làmb ñu toog tënk ko def ko ci benn kuréel jébbal ko CNG te boo xoolee lu ci bëri bokk na ci li changé règlement yi lu ci bëri bokk na ci li xam ne changement yi ñu apporté la ci règlement bi ba nga xam ne day jëmale làmb kanam loolu nag buñ ko defee pour rek gis suñu njëriñ ci affaire bi la parce que ñun ku nekk da am wàll pour avancement wu làmb euh, tey jii loolu CNG waroon na ko mën a jël en charge xam nga lu tax chaque année ñun dañuy demander def benn mise à niveau maanaam règlement bi ni mu changé ki nekk Thiès mën na ko bañ a yëg parce que du loo xam ne da ko koy wax téléphone eh léegi ku génn dañ lay avertir non dafa laaj pratique da ngeen war a tase yenn région yi yëpp ñu taxaw. nga expliqué leen lan mooy réglement yu bees yi nan lañ ko war a gisee ñun ñëpp pour ñëpp ñu bokk ni ñu koy doxalee parce que réglement ku nekk ni ñu koy interpréter bu dee da ngay dem sa yoon rek du dox dangeen di toog waxtaan gisee kii bi yéen ñëpp ngeen bokk ni ñu koy tënkee mais lii bu amee lii ngeen di def lii bu amee nag lii moo ci war léeg loolu CNG chaque anne ñu demandé leen ñu ne amuñu xaalis te pourtant loolu mooy avancé loolu làmb ji ah mise à maanaam loolu foo dem man ñu di la wax ne arbitre international suñu waree dem compétition il faut mu am ñetti fan yoo xam ne da ngeen di waxtaan seen biir ba déggoo soo a mun a euh, commencer compétition yi parce que da ngeen di harmoniser ku nekk li nga gisee mun na bañ a bokk ak kenn ñu gisee mais ñu wax ne nii lañu war a gisee ñun ñëpp loolu mooy avancé lu làmb boo déggee yéen ñëpp ngeen di wax souvent naan euh, règlement bi am Dakar moo am Thiès moo am Fatick ak mais loolu mooy yoon mais nag souvent duñ ko gisee noonu man damay toog ba mu dégg benn kenn woo ma nee ma euh, il paraît léegi da ngeen génnee trois heures ma ne ko li amoon moo am ba léegi mu ne non dama gis keroog combat bi parce que effectivement kooku gisante wuñu ak moom pour wax ko nan la war a gisee parce que loolu dafa am benn gis-gis boo xam ne ñun arbitre ñun ñëpp ñu ci war a ànd ñu war a bokk gis bi loolu daal loolu léegi beneen bi li nga wax ni ci tenue yi xaw ma tenue yi nga ma waxoon après wala. waaw waaw ci tenue yi non euh, waaw ci tenue yi ci tenue yi. yi ñaar la tenue yi dafa am tenue boo xam ne ñoo koy sol Sénégal tenue yi xew sol Sénégal. bi ñu sol Sénégal ñun ñoo ko jëndee suñu bopp ñu armé bi ñu sol à l'étranger. non attends non non attends <laughs> non <laughs> <laughs> nga ni yi blouson yi sol ci làmb ji fii ci Sénégal yéen a koy jëndal seen bopp làmb ji ñoo suñu bopp ñoo ko mës a jëndal suñu bopp CNG mosuñu weex lañ doon sol bu dee fàttali waaw waaw lu weex ñu weex yooyu ñu toog gis ne vraiment dafa salissant te yenn saa yi balaa ngay ñibbi da ngay tilim wala balaa ngeen di yegg ci dernier mhm. combat bi nga tilim trop ñu ne léegi il faut ñu changer couleur bi ñu changer couleur bi def ko boo xam ne gris la ak noir loo xam ne day xaw a jege lu ñuul tuuti waaw ñu changer ko ñu toogaat ba mu yaa gis ne ñaari couleur ngay gis ñu sol am na benn gris bu xaw a weex tuuti boo moom nit ñoo ko jënd encore pour lutte simple boobu boo ko gisee rek xamal ne lutte simple beneen bu xaw a ñuul mooy lutte avec loolu yëpp ñu ñoo koy jënd ku nekk yaay commande ñun dañu am suñu caisse ñu cotiser dañuy commandé après ku nekk di remboursé ndànk na mais amul lu ñu CNG jënd ci blouson yenn saa yi sax dañ ciy wax seen xalaat naan blouson boobu neexu ñu dafa xaw a ñuul ak yooyu alors que ñun jënd ñu joxewuñu mais au niveau international de ay arbitre yoo xamante nii CNG mooy seen tutel bu dee licence à l'extérieur muy euh, compétition internationale yéenay jëndal seen bopp licence soixante mille francs des fois soixante dix mille tenue yi yéen a koy jëndal seen bopp et non pas le CNG ñuy waxati séminaire de mise à niveau lu jëm ci li nga xamante ni moom mooy ay réglement yi ñuy teg ngeen di dem di di di di gën a jàngal les arbitres ak ñeneen ñi nekk ci région yi lan mooy mhm. euh, lii di nga xam ni moom mooy lu ñu teg muy règlement yi mhm. loolu tamit ngeen koy financer seen bopp kon boog je peux dire que ne arbitre yi ñu ngi biir ci CNG CNG jiite leen mais g defalu leen dara en en gros quoi man su ma fekkee mën naa comprendre. waaw c'est que xam nga xam nga li ñaaw ci affaire bi moom koo euh, xam ne jotul dara li muy jot ak néew ak ak lay jot hmm. tuuti lay jot lu tuuti loolu nag loo xam ne da ko ciy teg pour moom doxal làmb bi loolu la ñuy def maanaam bëgg-bëgg moo tax bëgg boobu nag tax na waroon na tax CNG war a mën a def benn effort parce que tey jii lan lañ lay wax naan la woy foo dem ci monde bi nit ki mooy jël outil de travail am dëgg la nit mooy jël outil de travail mais bu ñu xoolee ni CNG tënkoo waroon nañ mën a génne idée boobu teg ko ci table teg ko fële maanaam CNG ni ñu tënk effectivement ñu bokk si ñoom ñoom ni ñu ni ñu bokkee ci ñoom loolu la ñu war a mën a financer pour ñu ñu liggéey bi mais mënoo ma du ma la jox lu tuuti li ma lay jox si nga war a jënd tenue si nga war a jënd timbre nga war a paas dem si nga war a paas ñëw si nga war a paas dem réunion mais xoolaatal loolu finalement lan lay niiru moo tax nit ñi bu toogee di di wax naan xaalis man la di xaalis man di mais yii moo tax daf lay naqari ça du woon loo xam ne vraiment suñu wax la ñun liggéey rek moom a jóg. mais mais si Sitor mais yéen Sitor xamu leen xamu leen dagg yi ñuy dagg mbër yi xamu leen xaalis boobu fan lay dugg. waaw non c'est xam nga dafa am yoo xam ne ñun presque suñu yoon nekku ci daal laa mën a wax. Euh, dafa am loo xam ne euh, yow mun nga ko gérer ak loo xam ne xamoo ci dara waaw ñun daal luy ñëwaat si ñun xëy xam nañ mais dugg ci ay lii lay dem lee fee man gisuma ko jéem toppatoo léegi nag am na yoo xam ne nag maa ngi koy dund ñoom di ko gis comme par exemple dina am social ak yooyu mais foog naa ñu tam euh, ay cas sociaux la ñu ah, war na mun a régler suñu problème tey jii <laughs> waaw yéen kañ seen situation seen situation dafa dafa grave parce que li nga wax nii tey foog naa ne euh, c'est la première fois nga wax ko tenue arbitre di maanaam blouson yi ñuy sol Seydina déggal lool ab Ablaye euh, mooy seen blouson yi ñuy sol ñoom ñoo koy jëndal seen bopp waaw blouson yi daawul jënd daal mooy internationaux yi muy Sitor Sitor euh, Babacar Malick gis nañ ko Malick ak muy dem di arbitrer à l'extérieur mhm. waaw yéenay jëndal seen bopp seen yi blouson yéenay dagg seen licence bopp soixante mille soixante dix mille ça c'est grave mais dans tout saa dans tout ça ki nga xam ni moom moo jiite moom moo leen fal di ministre des sports gisante ngeen ak moom lan la leen wax lan ngeen waxtaanee loo xam ne mën nañ ko wax ci presse. non c'est que man foofu bëggatuma ci wax noonu parce que xëy na dafa ñàkk déggoo la euh, comme quoi ministre bi daf ñu waxoon ne nañ ñëw lundi boobu ñu grévé ñu rencontré euh, loolu xëy na dañoo déggoowul parce que man li ma ministre bi waxoon daf ma newoon. soir leen seen grève bi après lundi ngeen ñëw ma recevoir leen léegi man nag ni ma ko jàppee mooy comme que arrêté wu ñoon grève bi duñu recevoir xam nga laa ko jàppee il paraît que moom il laa wax il que moom mu ngi doon xaar lundi bi léegi bi ñu ma ko waxee sax lu ma bett te dama ne ah man de comprendre wu ma ko woon noonu parce que li ma waxoon mooy arrêté leen grève bi ngeen ñëw ma recevoir leen lundi waaw léegi noonu laa jàppee après mu ne ma après dinaa woo Aliou Sarr man tam ma toog di xaar loolu laa jàppoon ne loolu la mais finalement il paraît ñu doon xaar leen loolu la am lu ma ci wax parce que nee naa kon ñu ngi ñu ngi naan yàlla yàlla na leen woo mais tey actuellement dafa mel ni kii léegi euh, données yi euh, changé na ndaxte situation oblige actualisation actualité oblige ah surtout jamono ji monde bi toll nañ foo xam ne actuellement xel yëpp dem nañu euh, kenn mënatul toog ci guerre diggante arbitre yeeg CNG Alioune Sarr ak nangam sangam tollootuñ foofu euh, mais rappel rek lañ doon njëkk a def mais actuellement am na décision boo xamante ni jël ngeen ko yéen arbitre yi muy décision bu sage soir lépp en attendant ñu wax ci li nga xam ne mooy euh, Covid 19 bi. waaw loo loolu nag mooy li ñu gën a yitteel jamono ñu toll nii parce que euh, yaa ngi wax guerre sànq ville guerre bi guerre ak kenn. dañoo jotee dañoo ñàkk déggoo peut-être xëy na euh, population bi xam wax ñun daal wax nañ wax nañ wax nañ li ñu waroon wax wax nañ ko fi ñu ko waroon waxee xëy na bu ñu defulee loolu kon ñun ñoo ko yóbbu feneen parce que effectivement fi ñu waroon waxee la ñu waxee te faale wu ñu yóbbu ko feneen léegi nag jamono ñu toll nii euh, xeex bi dëgg mooy virus bi ñëw fii euh, sonal monde bi yëpp et sonal Sénégal état yëpp jub ci Euh, di xeex ak moom ñuy aviser population di leen wax nan lañu war a def euh, ñu war a moytu ba kii boobu virus boobu law Sénégal euh, leen nag ñun arbitre yi temps yi dañu doon dégg lu bëri dafay ñaaw trop ñu continuer nekk ci wax boobu di xeexal koo xam ne kii gën a jar xeexal instant mooy virus boobu léegi ñuy wax population sénégalaise bi yëpp ñun ay sénégalais lañ ko tout le li ñu métti métti nañu parce que ñun suñu dëkk Euh, ñu nekk extérieur aussi métti nañu parce que sénégalais yaa ngi extérieur monde bi yëpp affect euh, effectivement monde bi yëpp ñu ngi di xeex virus boobu léegi nag ñuy ñaan population sénégalaise ñu nag ñoom a yem nañ jóg ñu ñëpp xeex affaire bi ñu jóge fii te ñu respecté consigne yi ñuy jox parce que loolu moo gën a am solo gis nga tool xam nga maa ngi ñu sama néeg laa nekk kan moo tax ma toog parce que gis naa nit ñi léegi buñ ne ëpp am na feet rek ñëpp toppaat ci dëkk bi tase bi ñu doon bañ am te foofu naa lañu la ñu war a gën a mën a xeex instant ku nekk na jéem a wàññi génn yi ku nekk na jéem a wàññi gise yu bëri yi ak nit ñu bëri yi fii waa loolu daal moo nekkoon ñun instant yi suñu xeex ñu nekk autour du président la république autour de tous les ministres yi nga xam ne ñu ngi xeex affaire boobu ñu leen siy jàppale ñu ñun tam liñ doon wax yëpp ci leneen ci jegee dañ koy wàññi jëmale ko léegi ci ci virus boobu ñuy wax coronavirus xeex ko ba mu jóge fi te mu jëpp bàyyi àdduna bi yëpp incha allah. am nga am nga kii am nga gel gel gel alcoolique yow ak ñoom Babacar ak euh, si kii. waaw am naa ko mu ngi euh, Pierre man ñaar laa yore sax benn. <laughs> maa ngi ñaar sax benn baa ngi nii. Mm. benn baa ngi nii mun naa leen ko woon léegi ñaar laa fi yore te dama teg benn bu mag. wan ñu ko wan ñu ko wan ñu ko ñu xool ko sensibilisation. waaw xaaral ma ñëw. <laughs> kon mi ngi noonu Sitor nduur mi ngi ñuy wan euh, gel alcoolisé bi benn vague euh, si moment wu sensibilisation lañu nekk mi ngi noonu voilà waaw waaw mu ngi nii merci merci euh, Sitor si Sitor kontaan nañu waaw waaw wan ñu ko wanaan ñu ko wanaan ñu ko wanaan ñu waaw mu ngi nii damay bañ xëy na publicité je sais pas mu ngi daal gel vague bi waaw non garaawul garaawul léegi maa yor naa ci yor naa ci benn bu ndaw boo xam ne sama biir saak lay nekk fu ma dem rek hmm. damay raxasu rek hmm. raxas sama loxo vraiment hmm. euh, biir ah, ah, ah. loolu na ko kon euh, sensibilisation bu am solo la euh, Sitor Ndour arbitre seerul te jar na ko voilà euh, si si sensibilisation bu am solo la euh, gannaaw bi nga xam ni li ko yitteel wax nañ ko ñoom ci li ñu nekk nee nañ nekkuñu ci guerre ñàkk déggoo la ñu nekk li nga xam ni seen ak la ak seen yelleef loolu la ñuy défendre gis naa léegi benn message boo xam ne message bu am solo la foog naa ne euh, si toor yaa ngi koy gis ana message bi sax na ñëw waay na ñëw na ñëw na ñëw na ñëw waay. les gens nee na les gens Paul Paul Marie Diouf nee les gens ils doivent savoir que les arbitres ne sont pas des bénévoles ils sont payés pour être formés formés de grade en grade hein et ils sont passionnés par cette discipline mais euh, on leur doit on leur doit un grand respect merci à notre frère cher président nous sommes de tout cœur avec vous yaa ngi gis message waaw kooku habitude la Paul Marie Diouf euh, Marie Gueye Diouf moom mu ngi maatam la nekk mais fii la defee formation. Matam euh, c'est un arbitre de grade. waaw Matam nekk actuellement professeur mm-hmm. d'éducation physique la. Euh, mu ngi nekk Matam. moom fii la defee le passage grade génn INSEP. vraiment di jàpp ci affaire bi. Mm-hmm. gis nga fi mu nekk ni mu soree mais. bi affaire yi jotee dafa daw ñibbi si fii ne maa ngi ñëw fii pour xeex bi gën a jege. par. affaire yi comme ni nga waxee rek kii ñu jar a instant yi keneen la léegi mu orienté mm-hmm. xeexam yëpp mm-hmm. ci coronavirus xabaan mm-hmm. si la nee na moom sax du arbitre sànq dama ne woon arbitre la mais nee na moom dafa leen bëgg dafa leen sopp da leen soutenir mais ne nee na vraiment tous les trois arbitres sanctionnés dañoo am respect billaahi dañoo yaru billaahi non loolu loolu lu garaaw la nag si toor mosuñu ko dégg mu wax mhm. Sitor yaru Sitor cool Sitor mosuñu ko dégg mu kaas Pierre Malick yaru cool ah Babacar tamit noonu yaru cool jàpp seen ñàmbur mosuñu leen dégg ci benn problème booy xool ñëpp loolu la ñuy wax quoi dañu naan yéen da ngeen yaru da ngeen a même sax boo buñ la gisee nii booy wax ak man da ngay ànd ak benn benn benn discipline bu bu bu bu doy waar loolu tamit ñu koy saluer Pierre Malick tamit ñu koy nuyu Babacar ak ñeneen ak ñeneen seen association bi yëpp ak Balla Ngiraan <laughs> maa ngi koy nuyu mais si toor kontaan nañu trop franchement ñuy jéggalu euh, ci ñu la téye comme léegi déplacement léegi dañ koy xaw a éviter ñun journalistes yi dañuy jouer suñu wàllu ci côté yooyu moo tax lu ci bëri ci ay émission par vidéo lañ koy defee pour gën a sensibiliser euh, la population pour mën gën a mën a prévenir xam nga foofu boo toogee yor sa gel man ma toog fii man doomu mën a wàll mhm. effectivement waaw Mm. Euh, kontaan nañu trop kontaan nañu trop looy looy tàggatoo. Mhm. waaw waaw bon di di di ñaaxaat Sénégalais yi rek euh, ci feebar bi euh, ñu ñu ñu def prévention def li ñu leen digal parce que am na solo trop bu ñu seetee incha allah feebar bi di jóge di jóge ci di remercier toute la population. yi nga mm. ne dañoo ànd ak ñun arbitre bi ñu encouragé parce que vraiment ñu dooleel. te ñun ba léegi dañuy respecté ñëpp respecté Sénégalais yi di wax lu la euh, di taas nga xam day amélioré condition tam taxul nga wax ko ak manque de respect lépp ñun daal ba léegi ñu ngi resté fi ñu resté woon euh, campé suñu position nag di xaar population daal mën nañu seede te nañu aat incha allah gërëm ñëpp te vraiment ñun ñëpp ñu xàccee ndoo dóorandoo pour coronavirus bi génn Sénégal génn moom jaajëf jaajëf Sitor Ndour ñu lay ñaanal euh, jàmm yal na leen yàlla may jàmm yéen ñëpp sa famille njaboot gi say xarit say mbokk yu nekk bitim réew ñu nekk fii yàlla na yàlla musal ñoom ñëpp ci coronavirus bi yàlla may leen jàmm yokk xéwal gi yokku sutura bi en tout cas ñun kontaan nañu ci sa disponibilité ak sa yar bi nga xamante ni amee nga ko euh, bu ñu communiqué wax ju rafet nga wax wax ju tegginu waxu responsable franchement euh, munoon nañu wax lu bëri nag mais actuellement mm-hmm. toolootuñu ci détaillé loo xam ni dañuy xëcc di dem di dem di dem mais il fallait que rek ñu reveniraat un peu euh, ci euh, coow lii li ngeen di li ngeen di waxtaanee muy seen ak seen yelleef après ñu door a ñëw ci sensibilisation bi parce que loolu moo nekkoon suñu objectif ñu ngi lay remercier Sitor nduur di la wax rek ba fan yi incha allah yàlla na ñëpp am jàmm. jaajëf. Euh,